sunu bës TV. dalee nag jàmm député Guy Marius Sagna ni ki démb mu daal di yëkkati ay kaddu yu diis gann kaddu yu wex xàtt daal di koy tekk ci kaw njiital réew mi président Sall ni ki démb ba muy janoo ak journaliste bile di Papa Alé Niang foofale ca dakaar matin ci la yëkkati yooyu kàddu bokk na si moom député bi la mu wax ñun askan wi waruñoo daw léeg-léeg da ngay dem. ci manifestation ñu ni tell grenade rek ñu daal dee daw alors que ñun askan wi waruñoo daw président Sall ak ñamu àndal ñoom ñoo war a daw ak ay ministre am noonee la ko waxee ñoom ñoo war a daw moom Guy Marius Sagna li tax mu daal dee wax loolu nee na kët ndaxte ñoom ñoom ñoo détourné alalu askan wi waaye tamit ñoom ñoo torturé ñoom ñoo rey ñoom ñoo jël suufu askan wi ñoom ñoo tabax si kaw euh, corniche bi ba waral ñun askan wi waruñoo daw benn yoon léeg-léeg nag nga daal di dem manifestation ni ñu teel a rek ñëpp daal di daw moom Guy Marius Sagna daal di wax ni ma dellu waxaat ni kat moom président Sall. sunu bés ragal la moo waral mu daal di dem foofule ca Mermoz daal di sës rek ci base militaire française ba nga xamante ni moo nekk foofu dem ba àgg sax di wax ni jot na kat ñi daal di ko wala bokk dem ba àgg di wax ni jot na ci ay information naam wóoru ko moom gii ma Marius Sagna noonee la ko waxee wóoru ko nag waaye am na ñu wax ni kat

ci foofale mu dëkk ci suuf dafa am euh, tunnel waaye nag Guy Marius Sagna dëggalul benn yoon loo lilee ndax këtu wóoru ko waaye daal moom Guy Marius Sagna ma ngay xam le ni président Sall ab ragal la moo waral mu daal di dem dëkk foofu foofale ca Mermoz sës rek ci base militaire ba nga xamante ni moo nekk foofu foofale mu nekk ay kaddu bu wala bokk mu bokk lenn ci ay kaddu yoo xamante ni moom député bi le daal dina ko yëkkati ba muy jano ak journaliste Dakar Matin bi le foofale ca Matin di Pape Alé Niang daal di koy tekk ci kaw ndoddal njiital réew mi président Sall.